alors fi ma leen indi nii tey muy Jean Lefebvre Wakaam ñu ngi ko tuddee Jean Lefebvre parce que ay carrière la woon doj boobu ngeen gis ci ginnaaw doj bu mag bële ab avocate moo ne moo ko moom ñu ne déet waay euh, mu am benn nit ci benn famille président toog naa nag président wax ko ko voilà yàlla dimbali na ma ma toog wax kilifa réew mi wax ko ko euh, damay bañ a tudda turam parce que daf ma ñaan ma bañ a ci tudda turam kooku dafa jog am arrêté du ministre des finances ñëw di xëccoo doj bi bëgg fi def ay produits chimiques pour seeyal doj bi jël terrain bi terrain boobu ñëw fii jël tali bi après remblayer à près nee na day def remblayer cent mètres ci géej bi pour def fi projet lii mooy enjeu bi nekk fii ñu ooma en tant que président SOS littoral man Omar Diagne ma jox ñëw bi ma ñëwee ma imaginer un projet parce que il faut des alternatives ma ne ah la nature a horreur du vide donc fii daal il faut qu'on crée la promenade de Malmelles loolu nag lumière la l'inspiration elle est divine mais dama yàgg agir fii d'ailleurs def naa si taalif su ma amee jot dinaa leen wax taalif bi ngeen gis sama attachement wala ma dugg si léegi-léegi fii ma dugg si léegi taalif bi ma def maa ngi ko tuddee renaissance te tey bésu dekki la aussi ah parce que prédation mu am foofu renaissance dama ciy wax ci taalif bi mu am beaucoup de métaphores et de paraboles donc taalif bi agonie fatale sur ma terre natale ô phare solitaire amputé dans ton regard singulier l'effroi m'étreint dans ta fureur le crépuscule étale sa beauté d'huile brûlante sur les plaines du silence de ta colline l'est familier accoucher une étoile de vie qui éclipsait l'opulence de l'exubérance. La nuit mesure l'amplitude de l'aube et puis la plénitude du jour. L'onde gélatineuse de la mer déroule son bras nuptial et le soleil féconde la lune dans un profond ciel de rédemption. Ô mamelle, devant toi éclore l'immensité étoilée dans un ballet de lumière sur fond sonore d'un tam-tam sorcier. Et c'est la fête du vent des fleurs et des fruits. Ma pensée joyeuse au trône sur un cheval ailé d'argent, tel un ange venant d'argent. Vois mourir mon angoisse sur tes clairières. Ô mamelle au phare te voilà éventrée par le temps, par le vent, par l'océan, par les hommes gaiement le fusil à l'épaule. La grande muette profane dans un silence de bourreau. Sol mer, sol pur, sol sûr, sol mûr, mur du basal, fidèle boussole, gouffre de feu aux versants abrupts, sevré de culture et de culture, au fond de ton regard trouble, la houle, bâtarde de sa vague, accouche les couleurs de l'aurore. Sur ton sein saillant, mon cœur exulte. J'entends battre les ailes du phaéton dans les cris des cormorans de Soumbédioune. L'île des Madeleines, immergée de son nid de brouillard, aux piquets intrépides des mouettes, tandis que l'étoile polaire, au pas des génies de Dakar, dirait sa révérence xam nga ku bind loolu si yëg-yëg alors attachement boobu lañ am fii moo tax buñ bëggee jot di fi ñëw di wax encore cosaanu wakam fii la ne te bindat nañ si aussi mais soxlawul si alors moo tax ñuy am yëg-yëg si béréb mais boo xamee tànk cosaanam nga xam ne tànk lumière kase voilà donc euh, attachement boobu nag moo ñu pousse ñu ñëw taxaw ne lii du fi am préfet sax interdiroon na lii tey mais bi ko préfet interdire dama ne man dinaa ko def bon mu am ay médiation yu de dem après préfet bàyyi ñu donc maa ngi nuyu le sous-préfet des Almadies di ko wax ne kilifa la vraiment sant nañ ko gërëm nañ ko défiewuñu autorité maa ngi sant di gërëm préfet de Dakar gouverneur de Dakar le ministre des finance et du budget kilif gendarmerie Wakam ak DSCOS ñu ngi leen di jox seen wàccuwaay dëkk bi tàng na lool dafa war a sedd guy nag wax fa dëgg yàlla les forces de defence et de sécurité ñun lañ fi nekkal parce que fu si sa kër doon lakk léegi mais si ñoom ngay dem uti ji wàll wala bu fa ay samba booy ñëwee donc ñun ak ñoom dañu war a ànd liggéey en parfaite intelligence littoral bii nag ñun bu ñu amee taxawaay boobu aussi sañ-sañ la parce que loi sur le domaine public maritime moo ñu ko may président de la république ñëw dooleel ñu si jamono yii parce que dafa def benn décret alors décret bi mu ne emprise foncière restante du littoral bu ko kenn laalati dañ koy aménager léegi nag euh, président wax na loolu donc ñun daf ñu dëggal SOS littoral parce que dañu taxaw bu benn lu ñaat ne président nañu defar corniche su Wakam nañu defar corniche su Dakar nañu defar peggu géej bi muy littoral bi alors président de la République Macky Sall fekk see nañu si léegi euh, patrimoine u littoral ak géej mooy lii gën a taaru lu Sénégal am mooy lii nga xamante ne moo gën a riche bu Sénégal am donc loolu kenn waru ko sàggane promenade des Mamelles na gis ngeen que nii dañ fii ji ay garab léegi ku nekk bu ñu jogee rek kilifa gu ne yëkki benn garab dugal fi kàmba ji ko mais projet bi dañu dem suñu bureau rek suñu borom ubbi la ubbi waat suñu xel mais projet bi ñu ne Sénégal war na architecte liggéey benn voie de contournement parce que tali bi dafa xat pont de Brooklyn lañ bëgg fii mu dem ba Pointe des Almadies aw si ginnaaw faar bi connectez-vous avec la route de la mosquée de la divinité, la route du quai de pêche de Wakam, qui est connectée avec la corniche ouest. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que Dakar, qui est une presqu'île, qui, a une densité démographique très forte, bu ñu defee voie de contournement yooyu comme euh, aéroport bi état bi ubbi na ko te deful benn voie de contournement te route de Ngor bi xat na ñëpp gis nañ ko les tours yi ñuy tabax ci Mamel fii surtout la tour du CDC de la CDC bés bu tuuru CDC ubbee mais mën nañ wax 5000 véhicules dina yokku ci trafic bi et il faut anticiper l'avenir du ñu dund nii rek comme ay bàyyi ma bon dem fi bàyyi ay problèmes pour les générations futures ñu ne donc le pétrole arrive ah le Sénégal va avoir du pétrole et du gaz a du pétrole et du gaz qu'il va exploiter qu'il a commencé à exploiter mais il faut anticiper les, ressources pour que ñu dugg dans le programme des villes durables l'agenda 21 les objectifs du millénaire pour le développement suñu amul ay projet d'envergure mais bon du ñu liggéey suñu dëkk yi alors loolu rek mooy solo bi léegi nag population yi seen bopp ñoo war a taxaw parce que citoyenneté lañ toll dans le monde gis ngeen les mouvements d'indignation un peu partout dans le monde beneen bi la la la la constitution la loi fondamentale mais daf ne les ressources naturelles appartiennent au peuple donc bu askan bi taxawul pour que ressources naturelles yooyu mu ne moom moo ko moom mais prédation daf siy am bu boobaa ñi nga xamante ne peut-être ñoo ñuy diriger du ñëpp a bon mais dina am ñu nekk ci biir nguur gi di def lu ñuy wax le délit d'initié te loolu nag bëri na Sénégal délit d'initié mooy nga jàng bay liggéey ci nguur gi alors yow da ngay xam la planification des politique du gouvernement nga dem kari ji état bi au lieu nga dundal réew mi mais ngay dundal sa bopp di enrichir iniquité ak disparité yooyu déséquilibre yooyu dysfonctionnement yooyu moo waral suñu tissu social tey effrité wu ba mu nekk ay foyer de tension yu dul jeex am réew nag buñ ko bëggee liggéey il faut ku nekk dugal ci sa loxo comme ni Kennedy di waxoon sul xool lii la sa réew di defal mais xoolal li ngay defal sa réew donc lii mooy solo bi ñu ne woon nag bu ñu fi indee chefferie coutumière bi dajale fi les maires alors euh, bu ñu ñaanee alors le ministre des finances et du budget arrêté boobu nga xam ne ministre des finances bi defu ko beneen ministre des finances et du budget moo ko defoon mu retiré arrêté boobu rek jàmm am c'est aussi simple que ça su ko defee promenade des mamelles bi nekk fii ñun dinañ ko defar ba mu rafet le coût est de 400 millions aménagement bu ndaw bi pont de Brooklyn bi ñuy wax c'est plus de 2 milliards 2000 milliards d'investissement plus de 2000 milliards quanti mënuma ko quantifier parce que du ma expert en ça mais architecte mais xam naa si natt ah boppa du yenu mais xam na lu bët antal loolu Sénégal mën na ko financer mais le pétrole mën na ko indi financer ko donc pont buy joge fii tàllal fii amul sax si àddina bi ñeenti voies lay doon ñaari voies routières aller retour benn voie piste cyclable muy vélo parce que kenn amul foo dawalee vélo fii da ngay jëndal sa doom vélo mais du ko am fu mu ko bu génnee sali bi boo moytuwul bakkanam des fa donc une piste cyclable ak une piste piétonne ñi ñu di fa dox ma imaginer ne boo nekkee si ginnaaw faar bi si biir géej bi soleil bi buy tëdd fii jant bi taar boobu jéggi na dayo kooku dina indi tourisme bu bëri bëri bëri si Sénégal et puis bu neexee état bi sax mu def que une fois payant mu nekk koom buy dugg si dëkk bi lii nag ñun SOS littoral moom lañu xalaat def ka une alternative par rapport à la réappropriation du littoral bi sama mat bi di wax toujours Pape Mokhtar Ba di dugg dans les théories de la destruction créatrice alors loolu noonu moom lañ porté comme plaidoyer ne woon dañ koy jagleel coutume bi jagleel ko maire yi ñoom ñooy suñu kilifa ñu porté que si état bi su ko defee état bi dugal loolu si ay programme pour mën ko def. Euh, maa ngi nuyu ñëpp ñi fi teew sama papa yi sama grand frère yi sama xarit yëpp ak yéen journalistes yi ñëw fii la représentante de la mairie de Dakar ak sunu mbokku Ngor yeeg Yoff yëpp di leen remercier ci seen euh, présence ici donc euh, di leen wax ne di leen jotali nuyu Abdoul Aziz Gueye maire de Wakam amoon benn empêchement donc ma représenté ko li may bëgg a expliquer ni yi rek pour que ñu xam ne ne projet bi ñuy bëgg a def yi projet bu ambitieux la mais en attendant que projet bi di voir le jour que ñu faire en sorte que prédateurs fonciers yi nga xam ne ñu ngi tourner autour de ce petit lopin de terre bi nga xam ne je ne sais même pas comment ils vont pouvoir installer quelque chose ici immeuble ou je ne sais pas parce que bu ñu koy def ñu ngi agresser géej bi ci li ma jot a xam ñi ma waxal moolu wakaam yeeg yooyu am na benn zone boo xam ne zone de reproduction la fii mais boo leen gisee am na quelques vidéos yoo xam ne c' est des camions et des camions de béton de xeer yu jëlee xaw ma fan moom lañ nekk di remblayer pour faire quelque chose fii nii donc bu boo gisee beneen côté bi occupé nañ ko donc les gens ne peuvent plus accéder à la mer ce qui est notre droit le plus absolu donc bu xoolee ba lii des fii tuuti ñu accaparé wu ko un jour ou l'autre nit dina bëgg a jóge fii wàcc ñu ne ko fii c'est une zone privée te déjà boo xoolee tout le littoral dakarois est occupé et inaccessible à la population donc le peu qui nous reste ici je pense que ne euh, euh, président bi bu s'il est au courant ou le ministre qui a dû signer l'autorisation d'occuper cet espace je pense que ñëwul gis fii la moo fi nekk pour autoriser espace bi donc ñun en tant que mairie bi ñu yëgee ne am na camion yi ñëw remblayer fii dañu envoyé une équipe mu ñëw jox sommation pour que ñu arrêté li ñu fiy def donc ñoom bi ñu leen joxe arrêté boobu indi nañ papier yoo xam ne ñoom ils ont le droit d'occuper cet espace ou pas mais am na instant boo xamante ne c'est à la population euh, au Wakamois à toute la population du littoral Wakam Ngor Yoff de se serrer les pour que nit yi o a accaparer le peu qui reste ici parce que ñu ngi agressé littoral bi agressé ne littoral bi y en a presque plus enfin c' est tout construit tout bétonné donc lii fi des nii bu ñu góorgóorlu ñafe mu échappé ñu donc man loolu moo tax man ma engagé wu le maire euh, m'a donné l'autorisation de venir à côté de SOS Littoral pour nous engager pour que au moins on occupe cet espace et que les prédateurs sachent que qu'il y a des gens qui sont là et qui ne se laisseront pas faire loolu moo tax ma ne naa si sànni ñetti kàddu et que euh, merci de votre présence et qu'on est là avec Baye Ngalla pour que les choses avancent et qu'on puisse au moins suñu doom yi au moins le peu qui reste suñu doom yi mën fi ñëw mën fi féexlu mën fi jël air et autre chose voilà merci beaucoup en tout et merci beaucoup Yassine di jël nuyoo bi teg ko ci loxo président Omar Ngalla di jël kàddu ci turu kilifa yi nga xamante nii ñoom laa àndal di suma ay kilifa yaraax tey lépp lu mu am tey ñëw na teew fii li ko waral mooy dañu am lu mel nii le président Omar Ngalla ak SOS littoral def ngandam délégation ñëw jàppale ñu yàggul dara ba ci démb la ca yaraax ba yàlla may ñu ndam kon tey jii ñoom bu ñu wootee fii ñun war nañu bàyyi lépp la nga xam tey nii teewoon nañu bu ñëw fekk si ko yaraax nag li mu am moo nekk nii ñi ñoo sanc yaraax ñii ñoo àndoon ak mag ñi tey jii nag ñu ñëw fas ne bokk ak yéen nga xamante ne nii moom ngeen fi taxawal te incha allah doo leen ci wéet li tax ñu ne ma jëlal kàddu gi may naa jox ndey ji réew di sama ndijaay Thierno Gueye lébu danaan fekk am na ku la mag rek gone nga ñu nag du ñu ànd ak ñoom di jël kàddu moo tax ma ni biñ ma nee waxal may jox leen ndey ji bi sama nijaay ci ma ngi waaye di di ànd ak yéen ci xeex bi lii nag du ndakaaru gese dafa dem ba jalaw foo dem lii moo fa xaw am na am dem boo leen seetaanee waxuma la booru géej gi littoral bi dëkk bi sax daañu génn ñun ñi nga xamante ne ni ñoo jiitoo ci Dakar ba tax ne lii nga ñuy woo ñu ngi ciy ànd ak yéen guddi ak bëccëg doo leen ci wéet ci turu Yaraax Tefes ci turu Caaray ci turu ba tubaab jalaw ak tànk ñun ay doomu Ngor doomu Wakaam doomu Yoof lañu suñu kilifa yaa ngi nii ñi ñëpp suñu ay bàyyi lañu ñun nag ñu doon ndaw doonoon doomu jaraaf Maguette Ndiaye titre boobu moom mu ngi ko jëlee fii ci Wakaam kon ñun ay Wakaam lañu la famille Jonn bii ci Wakaam seen yaay ak suma yaay ñoo bokk benn ndey ca yoof mu ndey mari ñing kon lépp lu ngor woote yarax woote ko yoof woote ko ñun ñu ko ca biir kon ñu ngi gàttal fii suñu kàddu ñu ngi sant di gërëm ñëpp di wax ni vraiment bés bi suñu bés la te incha allah ëllëg boole ñu ooyee ñoo fi jiitu salaamaaleykum wa rahmatulah di nuyu di jiital ci nuyoo yi xalif général yi nga xam ne ñoom la yàlla teg ci kanamu confrérie yi yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen sargal di leen ñaanal wér ak jàmm bu ñu jógee ci loolu may nuyu tamit sama kër baam Seydina Limaamu Laay alayhi salaatu wassalaam bi nga xamee ne moo weexoon démb te ñuul tey te ma bokk foofu ma leen di nuyu di leen sargal di nuyu kilifa aada yi nga xamee ne ñoo bokk aada yi ak cosaan yi moo xam tànk la jaraaw la jërëg la mooy fépp ñu ngi nuyu ku ci ne ci sa tur ak ci di nuyu tamit jeunesse bi parce que jeunesse yàlla def na kuy kilifa si ngay jaar te ñoom tamit ëllëg lu nit yoon ci seen loxo lay mujje ñu leen di nuyu bu baax di leen sargal bu baax di nuyu s littoral mi nga xamee ne Oban Ngalla Diagne moo ko jiite muy liggéey bu métti liggéey boo xamee ne kenn du indi meere kenn du la jox dara te di nga dégg ne di nga muñ lu ne te li ngay yaa ñi mu àndal pour ñëpp la ki gën a sonn mooy kiy défendre li ñëpp bokk te seentu ci daraam kooku kuy ñaan kooku nga war a ñaan mu am jàmm ak wér Omar merci la ma lay waxoon sama kër rek wax man ama ñaari kàddu dama ne la soo jógee di xeex jiitalal say kilifa ku la laa jàpp dina jàpp say kilifa ku la laa jàpp dina jàpp say kilifa muy kontante bu bi mu ñëwee fekk nga indi kuti mu caara yaraax ngor ñëw ñu am dëj bu nga xam ne dëj bu rëy la muy colonel Abdou Mbengue bi nga xam ne suñu doom la mu fekk way juróom ñu koy jàlle ñëpp ma ñëw fekk loolu dafay firndeel la ma waxoon dama la wax ne loolaa yëkkati am nga ay kilifa ñu coutume bi ñoom wax ñun ku ànd ak yow nga xam ne tàggoo nga ku àndul ak yow nga xam ne tàggoo nga ñii nga tàggu boo ëllëgee ku la laa yóbbu yóbbu leen loolu la fi mag ñi nekkoon xale yi bu ñu laa yëkkati dañu ñëw na mag ñu ngi yëkkati lii ñu déglu leen ne leen dem leen bu ñu demee lu fa xew ñu ne ñoo leen ko muy sa dëgër raay li ngeen wax nag dafa nekk lu nga xam ne lu yaatu la ku gis littoral bii ni ñu koy lekke laa wax du ma ne ni ñu koy jëlee parce que kuy jël da ngay jël loo moom ni ñu koy lekkee guddi bëccëg c'est trop te man j'en suis sûr et certain que lu bëri président sax du ko yëg parce que ñun taxaw nañ pare wax ko benn cas bu nga xam ci littoral bi la mu ne yëguma ko oh procureur ndeke lii nan la demee kon gars yi ñoo nekk ci bureau yi ñooy signé kayit ñooy jël une association de délinquance boo xam ne kenn xamul nit mën naa jël lu ne ba mu des littoral tu pars en Europe nit liggéey hôtel ba mu war dal ci géej bu des cent fu la neex jógeel fu la neex jógeel ñëw lal fa sama sax nit mënu la yëkkati parce que ñëpp ko bokk te li ma leen wax nii lu ma xam la muy anecdote bu nga xam ne dama ko dund dama ñu mas a dem Europe toog na xarit ci benn kanamu hôtel bu nga xam ne dafa dal ci géej surveillant yi ñëw nañu jóg leen y avait un avocat bu toog à côté avocat bi ñëw laaj ñu ngi nekk nii dem mu ne bu leen jóg booba xamuñ sax lan mooy droit fii domaine maritime bii cinquante mètres ou cent mètres ñëpp ko bokk ñëpp a feer a toog waaw bu ñu demee nag ba ay nit di dem di yéeg di wàcc di def ay kayit di ñëw di jële ay xeer feneen di ñëw lambare littoral bi di fi def ay kër yaa doy na yow boo lekkee nii nekk ci bii dëkk bi mu jeex nga ne géej géej si des naa ko lekk waxuñu kenn na xeex waaye dëkk bu yëngatoo bañ dinañ xam ne bañ na fii nag ba caaroy yaraxa fépp littoral bi fi xew dafa war a jeex parce que du lu nguur gi yëpp te amal xam nañu ma wax toog nag président wax ko loo xam ne dana ko yëguma ko yëguma ko la ko wax littoral bi nañ ko bàyyi ñëpp ko bokk man daal li ma leen di wax moom mooy la jeunesse loo mu bëgg a yëkkati mu jëriñ askan wi wax ñu soo ñu waxee ñu yëpp bu ëllëgee ku leen laa yóbbu dinañu yóbbu maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaam. ont réussi un de recouvrement plus que satisfaisant. Et que les avocats qui en avaient dû verser,